maaleykum je ngi nuyu la commune de Yoff Nous ñun waa Ouest Foire euh, nek biir nekk Ouest Foire avons une manifestation bu donc le 2 mars vendredi à 16h nous allons nous yegg pour la réaction au premier tour le président Macky Sall 2019 donc euh, devant la case des tout petit, bëggoon nañ ñëpp commune bi ou teew fi waa Ouest Foire ñëpp ñëw wuy ci bés bi délégué de quartier chef de quartier képp koo xamante ni, nii mi ngi ci bopp ba tey jàpp ni ko ñun ci bi tout guddi tëjuñu ngir bi na ñoom ñëpp teew fa eh, suñu maire Abdoulaye derrière lui donc pour massivement appeler le président en 2019 di nuyu maire bu Abdoulaye ak ñu ci ak képp mi ngi nekk ministre ci biir commune bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm waa bëgg ñépp ñëw teew ci bës boobu wasalaam. asalaamualeykum mbokk yoof et Cité Nouvelle di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen yégal suñu événement bi ñu def le 2 mars muy weeru jigéen ñi.

di woo ci tali bi di jaay ñi yor seen table di jaay waaw ndax ñëpp ci la ñu bokk parce que mars euh, suñu euh, suñu borom def ko def weeru jigéen ñi weer bi nga xam ne dañoo war a gis suñu bopp waa suqaliku ndax yàgg nañ suqaliku dañu dañ doon kuréelu au niveau des carte waaw di di daje di waxtaan di jàppalante waa léegi nag ñu ne meewu mars jot ñu ne li ñu li ñu doon jàppalante suñu biir di ko jàppalante ko dañ ko bëgg a yaatal ba mu dep ba mu tëb front ba mu tëb frontière yi jàll fépp dootuñu yemale ko dootuñu ko yemale rek ci ci Cité Nouvelle dañuy ñëw dugg Yoff bi nga xam ne moo jur Ouest Foire jur Nord Foire jur environnement bi yëpp jëm ba terme nord aéroport waaw ñu bëgg ko yaatal ci commune bi yëpp waaw ñu ci woo jigéen ñëpp woo waa Nord Foire wa terme nord aéroport wa Tongor, ou wa kenn ngeen suñu suñu du suñu la ñu ci euh, ministre maire fi mu président Macky Sall dage du président Abdoulaye Ndor ak ministre fi nekk di fi euh, député euh, euh, commune yof yep ak environnement bi kep fi am en commençant par par maire parce que fi suñu maire suñu ministre comme waaw ñun duñu def dara dara ci ak te impliqué wuñ te ñuy def pour yow pour la réaction

di ci woo ministre yi fi yeewoo ku lim jum di jël million bi yëpp di ko tënk ci sa loxo waaw muy noonu loolu lañ noonu lañuy woo chef de quartier woo notable woo saltige woo jaraaf yoof ndax jaraaf liggéeyam am na solo parce que mi ngi fédéré mi ngi jël pusoom di ñaw fépp fi nga xam ne euh, euh, militant mi ngi fa ak militante waaw te dañ nekkoon ci liggéey bi xaw a nopp lu sax mi ngi leen di seeti impliqué leen ci liggéey bi waaw loolu yëpp nag ñu boole ko tënk ko teg ko ci loxo maire mi nga xam ne mooy moom mii nga xam ne moom la président jox muy séddale mu seddale waaw maa ngi remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di woo association yëpp woo ñëpp ku lim nag juum jërëjëf di ñëwaat rek si suñu bës bi le deux incha allah parce que ñor parce que nit moom lañ naan dëkk ci dëkk bi jeun dekk be ko gën moko ëpp njariñ té nit fu mu nekk rek war na faa jaamu yalla war na faa yëngal war naa jàppale koo xam war na jàppale quartier lool rek mo waral li ndax bu dul won lool dañu tuddu suñu kër ndax ma sha allah am nañu ay borom kër yu baax ñu jappalé nak ñu soutenir sha allah li ñu am mu bari ñu ngi koy bokk ak ñun waaw kon nak su dé politique lañ cey juk bu def ko wala jóg pour euh, solidarité sax laay wax en premier lieu parce que solidarité mooy lépp parce que moo waral leket gi te ko solidarité la jàppalante te yàlla tax jàppalante nag ci suuf lay commencé jëm ci kaw su jëmee ba ci kaw nag garab na ci kaw lay fekkante waaw moo waral leket bi ndax dañ ci door ci dërëm ci ñaar dërëm ba dem tey ji ñu toog mi mars jot ñu ne pourquoi pas dañu wane suñu bopp ci weeru mars bi dañ koo def dañ koo waxtaanee mu nekk lu ndaw tubarkalla macha allah fas yéene nag di ci dégg ay éco yu nga xam ne ca kaw euh, yàlla di jàppale ba mu intéressé ñu bare waaw ku nekk nag bëgg kaa porté tey ndax lu baax moom soo ci dooree nga dem ba ci biir am ñu baax ñu bëgg bëgg ko porté sant yàlla la di julli ci yonent bi yàlla mu sant seetaan ak làmmiñ ak cap di xamal rek ne mm, maire Yoff abla Diouf Sarr li ñu yëngu man ak Mariam Kanouté mi ak jigéenu nak cité nouvelle yëpp nek suñu gannaaw ak jigéenu Yoff ak jigéenu commune bi yëpp di leen woo rek ci jamm ak salam di leen woo ci le 2 muy la aljuma 2 aljuma 2 à 16 h ku dalal gan day teel a ñëw dañuy dañu bëgg jigéen ñi teel a ñëw teel a teel a ñëw dalal suñu ay gan ci kàttanu yàlla ñu ànd ak ñoom bokk liggéey liggéey bi waaw liggéey liggéey bi yàlla ñaan yàlla defal ñu ndam ñu yaakaar si suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr yaakaar ci maire Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdoulaye Ndour ak ñi fi nekk yëpp notable yi fi nekk ku lim juum ci commune bi yëpp waaw xamal ne rek solidarité rek moo ñu ñor leket gi ne boo ko gisee leket moom day law dañoo fekk suñuy ay maam di ko di ko yor ñu tam ñu juddu fekk ko fi di ko def moo waral lii ñu fas yéene nag jàppalante ci rek yàlla rek a tax moo tax ma won leen ko waaw pour élire le président Macky Sall dès le premier tour waaw yàlla ñu yàlla jàppale ngeen ñëw suñu bés bi si jàmm ak salaam ñu ànd boole xool yi tàppe xool yi ànd ak suñu àndandoo boole suñuy doole ci Sénégal jëm kanam ñu ciy woo nag pépp kuy responsable fu responsable nekk rek ñu ngi lay woo amuñu xaaj seen fu responsable nekk fu daj jigéen nekk fu notable nekk fu chef de quartier nekk suñu jaraaf ñu ngi lay gërëm di rasant sant ndax danga cee jàpp yow ak saltige war mbenk waaw na ngeen ci jàpp suñu meer jàpp ci suñu ministre jàpp ci Abdoulaye Ndour jàpp ci ñëpp jàpp ci ñu bëgg nag bokk ak yéen lépp jërëjëf jërëjëf jërëjëf ba la dëgg jàmm ci ci jàmm ak sa